asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki dëkk waa Moussa bi ñu ngi ziar ñëpp di jox ñëpp seen wàccuwaay di jiital ci ñëw beeg a baax ko jox wàccuwaay di ziar itam waajur yi nga xam ne ñoo nekk ci koñ bi ah ñu ngi nuyu ñëpp nag di ziar ñëpp voilà waaw li nga xam ne mooy tax moo waral daje bi tey jii nii mm. ñun dañoo dëkk ci gox bi dëkk Moussa bi li commencé teenu maam Cheikh Cheikhaw ga ñëpp dañoo am suñ benn hôpital bu nekk fii muy hôpital fii la ñëpp di fajoo mais léegi boo demee ci hôpital bi pour nga gis fa malade sax problème ndax la kenn fajootu fi mm. ñu fiy dund ay jafe-jafe yoo xam ne mooy loolu boo fi sonnee sax ambulance bi nga xam ne moom lañu yaakaar ñun ñun waa Mousso bi ñu ne ambulance bi moo nekk ci hôpital bi mm. ambulance boo xam ne day rooti ambulance ambulance bi day rooti mm. day yóbbu ay élèves ambulance bi day jaayi feeraay ambulance bi li may wax ñi may dégg bu dul dëgg nañ wax ñu

mais tey da nga ñëw ambulance bi day nekk ci hôpital bi nga gis malade boo xam ne dañ naan ko jëlal taxi. taxi lay jël waaw. mais xam lañ bëgg a xam ñun. ñun ndax ambulance lañ yor wala clando lañ yor. ñun ba pare li ci gën a garaaw mooy ambulance bi. malaat bu mu fi évacuer di la jàllale da nga koy fay. dangay fay ambulance da da nga joxe xaalis pour ambulance bi mu door la yóbbu. kooku day sauver wala day fay. Hmm. waaw ñun liñ bëgg mooy. Hmm. ñi nga xamante ni ñoo fi nekkal gox bi. ku mel ne maam Xarim Mbacke ak waa Touba sa kanam yi nga xamante ñoo fi nekk te def lu baax rek moo leen tax a jóg ñu gëstu waa Mboussobé ñu wutal ñu ambulance bu baax boo xamante ndax fii xale yi ay xale ñoo fi nekk te dañoo toll waxtu nawet malade yi bëri na nit ñaa ngi dund loo xamante mooy loolu jigéen yu wérit yi bëri nañ fi dañuy dund loo xamante ni ci yoon yi ci ay taximaan yoo xamante ni la asim duy caaxaan ñoom mun nañ hmm. dal hmm. te wax vraiment waroon ñu mën a am ambulance boo xam ne hôpital hmm. buñ ko gox ko teg war nañ fa teg ambulance bu baax bi jafe-jafe yi muy jànkonteel bëri na mooy lamp yi maanaam ci gàttal ñi nga xam ne ñoom lañ fi teg seen bopp lañ fi nekkal amul lenn loo xamante ni mën nañoo taxaw ne tey jii nii lii ci la ñuy soutenir. yaa ngi dégg sëñ Abo nag yéeneem la amoon indi benn ambulance pour jéem a mais ambulance bi moom la la tax mu indi ko fi ak la mu bëggoon ñu defal ko ko na ko leer nañ ne ko ko ambulance bi li ma leen wax dafa leer day rooti day yóbbu ay élèves day jëndi caaf day jëndi di ay xar day jëndi poon day jëndi xaal day jaay feeraay voilà man li may laaj autorité yi mooy ñu ñëw jàppale ñu ñu waa Mboussobe parce que ñoom dañ ñuy soxla di fi ñëw dañ ñuy soxla di fi ñëw ñu bëgg ñu jàppale leen kon ak lu mu métti métti ñoom it war nañoo gëstu waa gox bi war nañoo li ñu soxla mooy ñun bëgguñu ko ñu jox xaalis bëgguñu ko ñu jox dara li ñu soxla mooy suñu hôpital bi ñu fexe ñu ba doxal ñu fi ambiance boo xam ne dina mën a sauver doomu aadama yi suñu koñ bi ñu fexe ba lamp yi ñu leeral ko yaa ngi dégg bañ a wax ay waxi kese waxi kese yi lañ bëgg dégg ñu ngi lancé appel itam xarit Mbacke moom nga xamante ni lépp la ci dëkk ñu koy ñaan moom itam mu dimbali ñu ngir yàlla ak yonent bi parce que na bëri na ñoo xam ne ñoo ñii ñëw fii naan ñu maam xari nee na maam xari nee na nangam loolu ñu ñuy wax leer nañ soxna si jotu ndax bu ci jotoon li saafara yaa ngi liñ bëgg nag mooy ku ñu dimbale suñu hôpital bi ñu am ambulance baax hmm. am ay médecins yu baax nag faj yu mën a faj sambe ba léegi lamp mënut a tàkk hmm. aw yoon mënuñu koo am gis nga ndox maa ngi nii am booy dem marché da ngay am problème hôpital bi nag moom ndax hôpital ay gone ndaw ñoo fi nekk ñoo xam ne dañuy jàng ñàkk ci booy lañuy ci mag yi jëmuñ ci lañuy jàng ay ñàkk di leen monter ay ak ñàkkub yar ba fekk dee nag. am na ci sama waay yoo xam ne nii soxnaam bi ay daanaka ci biir wàcc bi nii nii jàpp jàpp jéem na mu ci faje lu ne ñàkk na ko ci ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne ci hôpital Bousso bi Bousso bi ñu metti bëri na bëri na trop nañ ñëw jàppale ñu ci maire bi dañ ñëw dimbali ñu ngir yàlla ci ci hôpital bi maanaam topp doogu topp doogu baax parce ci hôpital bi li nga xamante ni mooy premier fay bi mooy maanaam sage-femme bi fi nekk maanaam maa ngi dégg jigéenu koñ bi ak man maanaam xam naa ci résultat boo xam ne lu ma leer la. Hmm. maanaam li ñu war a seq ak seen maladie dëgg-dëgg 100 hmm. di am malade. Hmm. dañ leen di am bi am ci bi am moom boppi tànk. kon daal dañoo qualifié wu. waaw dañoo qualifié wu. amuñu médecin yoo xamante ne carrément médecin yoo xam ne yow man bu soobee te am naa fi yeneen am naa fi yeneen yoo xam ñëpp mel na bu yàggee woon daal te loolu gënal ñu. sunu kàddu yi bu sañoon bu ñu dañoo kàddu ñëpp lañ koy defee mais dañu kàddu naqar. waaw kon bu demee noonu bu ñu sañoon li kàddu yi ñu jooytu nii dañuy bëgg ndimbal bu ñu si dimbali moo xam muy maire bi moo xam muy maanaam képp koo xamante autorité bi sa loxo yoon sa ginnaaw nga dimbali ñu ci gox bi ci yàlla tax ñun askanu Mbusoobe amuñu lu Mbusoobe Mbusoobe lañu saboo bu ñu sañoon dara duñu ŋàññi zone mais buñ ko defee dañoo sës xam nga ne li gënul ñu dajale mbooloo dajale ay ay dérange ay ay personnes quelques personnes ñu dajale pour jóge ko sori ñëw buñ ko defee gënul médecin bi nekk. médecin bi ma faj bu juróomi médecin kenn moo ci après nga ñëw. loolu du yoon wàññi ndox mi. loolu du yoon fi bàjj jógee ba léegi. madame bi fi nekk ah, am na ñu koy ne nañ macha allah. man mii neen ma moom. mais des ma gis fa ñoo ni ci hôpital bi. ganaar bu wax du mu leen ko jox. voilà merci moom leer na. voilà kenn ku ne ñu ngi sant ñëpp